publique. mais pourquoi ngeen dem di seeti politique yi. mais moom laa la wax parce que ces politiques là pourquoi ñu dem seet pourquoi ñu nangu ñu recevoir. pourquoi ñu nangu ñu recevoir. c' parce que ils reconnaissent en réalité suñu combat ñun on est resté ce que nous sommes. depuis bi ñu commencé ba léegi. ñoom ñoo ñu fekk si sur ce terrain là. ça veut dire que ñoom ñoo avoué que ne aujourd'hui yéen li ngeen doon def. yéen a nga ca ba tey. mais ñun ñëpp ku ci dem ci opposition bi. mais damay préciser damay préciser sama laaj bu fekkee ne dañu jàpp ne. Mhm. c' est la fin des partis politiques mhm. classiques. Mhm. ñu ne léegi c' est jamono bi jamonoy mouvement yi la. ñoom ñooy mën a combat bi ñoo occuper espace bi. léegi lan mooy tax souvent opinion bi di am impression ne pourtant mouvement yi dañuy soxla caution. donte caution morale la ndax caution financière yi tudd ko feeg yooyu xaalis ak yooyu mhm. mais donte caution morale la dañ ko da dem wuti ko systématiquement ci way politique yi ndax xeex bi da ko mënul xeex yéen rek wala non je ne suis mhm. ci homme politique non non non mhm. l'homme politique avant muy nekk homme politique citoyen sénégalais simple lambda la mm. mu am casquette politique mm. et bu ñu naan c'est fin des politiques des partis mm. d'accord mais les mouvements citoyens man en tout cas bi ma bokk mu yaanamaan ñun utuñ benn benn benn benn mbir laaj ñu fal ñu dara mm-hmm. utuñ benn ndombal tànk mm-hmm. donc allah kulli xaal ñun lu ñu xeex xeex xeex xeex mm-hmm. homme politique mooy dem laaju ndombal tànk loolu dañ leen koy nangul tamit ñoom ngeen di xeexal daanaka daanaka ñun askan bi moo ñu ñor mais askan bi dafay nekk ci benn car rapide buy dem mu am benn arrêt bu tudd élection arrêt boobu heure bu jotee homme politique yi dinañ yéeg. mais yéen bu arrêt boobu jotee. lan mooy ses responsabilités yow mi naan ñii. mooy li ñu yàgg di def di wax askan bi ne leen yeewu leen. mais est ce que xool leen ban chauffeur la ñuy yëpp. justement sax pour euh, pour euh, dëgëral fi nga laajee. Mm-hmm. est-ce que yéen du ngeen gis ni euh, golo béy baa bu ndundee lay mujj nekk. non parce que ñun la ñuy béy utuñu ci luñ ci mm-hmm. ci jëriñoo. non parce que parce que chaque fois que politiciens yi dugg si finalement. expression boobu noonu golo béy baa bu ndundee. alalu booloo. Mm-hmm. ñoo ko bokk lu ruus ci nag bi. Mm-hmm. ay dañ ko war a dindi Sénégal parce que yooyu ak ay sama wàll fekkee ma dama ko fekkee. mais justement avec les politiques est-ce que c'est pas comme ça. que ça se passe mission aujourd'hui ñun ñëpp ñun ñëpp Sénégalais. Mm. dañu war a xoolaat yenn expression yi nga xam ne ñu ngi fii nii ñu fekk ko fi depuis cosaan mais moo yàq suñu dëkk ay ndeddu buur alalu mbooloo ces trucs là mm. mais boo mënee ay euh, golo bay baabu ndund ñun li ñu def ñun nangu nañoo doon golo askan bi bu fekkente ne golo askan bi mooy xëy di nekk ci besoin askan bi saa su ne. Mm-hmm. ñu nangu nañ ko. Mm-hmm. bu politique yi laa la wax bu politique yi laa la wax. non dégg naa la bu baax mais politique yi. ils feront leur rôle à moment donné. comme ñun ni ñu defee suñu rôle à un moment donné. Mm. bu laaj jotee ñu ñoom la ñuy tabb ñun laajuñ pour ñu tabb ñu. Mm. ñun ci la ñuy nekk la ñuy nekk te li ñu def capitaliser wuñ ko pour benn homme politique et loolu dañ ci mus a clair. Mm. dañ ci mus a clair musuñ taxawal nit ne la kaay nga voté diw. on a été clair depuis le début ñun suñu taxawaay njaaxaanaay la. su politique yi amee lu ñu def tort ñu wax leen ko su askan bi amee tort ñu wax leen ko d'ailleurs le de sénégalais ci population yi lu njëkk adressé wu. fay leen seen i tas taxe respecté leen mbedd mi. mbedd mi saltewul ñun ñoo salte ñooy naan sànni ci suuf ñooy saw ci mbedd mi mhm. ñooy surchargé car yi ñooy ñëw en retard naan rendez-vous sénégalais mhm. donc bàyyiwuñu kenn suñu bopp lañ njëkk tàmbali parce que c'est un idéal ñun sax nekk guñ ko léegi tey téye nañ leen ndax da ngeen doon distribuer ay flyers pour ne forme xeex bi dangeen ko jox beneen forme mhm. tey boobu teye nañ leen euh, tey jii bu ngeen doon envisager la suite euh, lan lay nekk la suite mooy flyers fépp maintenant comme dañuy laaj nee nañ uti autorisation parce que pour ñu libérer ñu mm. commissaire bi wax nañu ko nee nañu leen bàyyi ngeen dem mais demandé leen autorisation yëgal leen autorité bi ne ko yéen a ngi def activité bi mais comme activité bi ñu doon def laajul mégaphone laajul sonorisation laajul dara lu dul ñaari nit di ànd cette fois-ci on va investir les cars rapides les tata les bus les dem dikk les taxis clando partout ci Sénégal dinañ fa dugg dem xanaa nag duñ ma aay ne ma cat doo dugg clando cat permet moi justement ma laaj euh, euh, régie parce que dañ ma ni police réagir nañ Pierre da Silva précisément kan moo wax li nga ma wax ni loolu la wax mm-hmm. Pierre da Silva alors police ci li ñu wax nee nañ euh, da doon bloquer circulation bi salfaañe circulation bi kan ci ñoom moo ko wax wax ma kan moo ko préciser à la police mm. voilà dañ ma ko déy pour l'instant ñu Euh, il va me dire certainement. alors nee nañ entrave entrave à la circulation. j'espère dina wax réalisation. s'il te plaît mais mais exactement mais der surtout que la police aujourd'hui jottali ma ko. li caat wax dafa am solo. parce que mhm. muy yow muy man muy ñun ñi jaxasoog ñoom ñëpp à un moment donné. gis nañ ne li ñu war a def ci wàllu investissement ci police dafa bari. Mhm. est-ce que loolu ñàkk gee def investissement du influer ci seen xeetu jëfin. Mhm. yoo xamante ni ils se débrouillent avec les moyens du bord. loolu beneen la mais li ñuy tekki seen der yëpp aujourd'hui il faut que police aussi par voie officielle. Mhm. mu prononcé wu parce que gis nañ marche bële am na ñu ñu waxoon ne dañoo soloon ay tenues Baye Fall di agressé waate tey jii am na yeneen euh, tuuma yoo xam teg nañ ko ci seen kaw wax nañ ne aussi ci police lii mu xamante ni décrire na ko ça n'honore pas la police il faut que police aussi ñoom ñu jël seen responsabilité jar na sax ñu wane image wane photo bu fekkee ne dañuy déconstruire wala bu fekkee ne dañ koy dëggal et que l'autorité puisse agir à ce niveau je pense que police aussi a une grande responsabilité dans e et s'ils peuvent réagir par voie officielle mais ils n'ont qu'à réagir moo gën SMS yi doon naa bëgg ñu wax ban police moo wax ban policier moo wax loolu parce que ñun on a les images na ko bu ko demee seet ci net bi léegi mu man bi ñu may jàpp maa ngi toog ci arrêt car donc ku toog ci arrêt car nan la mu nee. bloqué circulation bloqué circulation. ci arrêt car laa toog man ak Pape Diallo si la ñoo toog donc nañ ma wan fan laa bloqué circulation. Hmm. der si la alors police euh, ni mu la ko waxee Pierre da Silva comme yaa ma ko àggee. si tu peux les appeler s'il oui. le faut ils peuvent entrer en direct il y a ça. dugal leen ci ligne bi qu'ils réagissent hmm. officiellement hmm. et en direct il y a en fait li ma doon wax foofu mooy ñun ñëpp surtout bi ñuy nekk école ak yooyu on a eu la chance ñu duggante police pour comprendre un peu comment ça se passe à un certain niveau mais honnêtement aujourd'hui mm. on a une police formidable bien formée et tout ce que tu veux mais du point de vue des textes du point de vue des réformes des textes mm. du point de vue cantonnement de la police te policiers yi may xool xam nañ li may wax dëgg la mm. du point de vue traitement salarial et tout ce que tu encore d'énormes progrès à faire boo xoolee le débat qui fait rage fi ne nii par rapport aux gilets jaunes yi mhm. c'est le syndicat de la police qui porte le combat mhm. bërki dem maa ngi leen seetaan ak Laurent Ruquier dans on n'est pas couché mais dañuy porter combat vigoureusement egg nañ sax fi ne nii ci ne nañu bàyyi gouvernants yi nañu bàyyi di jël ay français di leen dóor ci yeneen français parce que ñoom euh, ordre la ñuy jot dem ci loo xamante ni souvent jaru ko mm. jaru ko bu fekkee ne ordre dañ ko dañ ko jaxase mais nga rétablir l'ordre boo leen fekkee ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy bloquer circulation nga ne leen bu leen bloquer circulation et continue mais man la question que je pose mooy tey ji entre Ousmane Ngom à l'époque et entre Aly Ngouille mais où se trouve la différence du point de vue liberté publique mm-hmm. mais amul y a aucune différence c'est les mêmes pratiques ou sinon pire ñoom ñaan ñoo yem kiif kiif mburu ko foofu ko farine boo ko xoolee xoolal enseignement bi ma lay wax les deux seuls ministres qui ont été reconduits depuis que Macky nekk fi ba tey Matar Ba sport la ak Aly Ngouille Ndiaye mosu leen changé seen lan ne football kese la ñuy wax mu ngi am ay résultats yem mais Aly Ngouille Ndiaye parce que il est au service du patron c'est un ministère moom kese la nee du ko def du ko def du ma ko changé du ma ko soppi du ma ko pousse du c'est le seul bu muy reconduire partout. mais mais loolu mais leneen li nga wax lii. importance bu mu am mais la police sénégalaise elle a les mains liées. Mmh. on n'a pas une police indépendante quand un benn lu toll ni police amul droit am syndicat quand magistrat yi amuñu droit am syndicat mais que font nos députés à l'Assemblée nationale. pourquoi on leur vote pas des lois pour ñu am seen ay syndicats mën a kaas seen. ay nekkin sax am nañ seen l'UMS. oui mais mais qui fait office pose le débat oui mais xeex. mais xeex bi def ah. ay euh, ñi ngi def ñi ngi. da nga naan ci constat rek la ñu yem. exactement ah. mais loolu moo waral ñenn ñi di démissionner. Hmm. parce que bu ñu leen bëggee xoj ñu démissionner dem seen hmm. yoon. Hmm. donc il faut mais là aussi gis nga dafa am beneen mbir bu am solo fii. gis nga c'est pas pour rien que Macky Sall ñëwaat tey au pouvoir. Ousmane Ngom bi nga xamante ni à l'époque dañ ko reproché woon de tout ce que tu veux mu indi ko ci wetam. cela veut dire quoi cela veut dire que le ministre de l'Intérieur reçu souvent dinañ ko dugal au box des accusés par erreur parce que moom ci boppam le plus souvent am na ci loo xamante ni mën na ko transcender le plus souvent sax jaxase leen ak sénégalais yi wala soit yeneen ay ambition innové yi suñu politique fii moo ba nga xamante ni mën nga na ko def par exemple c'est-à-dire quel est le niveau de responsabilité je ne suis pas certain que la loi Ousmane Gom a été créée par Ousmane Gom c'est une loi qui a été créée exprès par Abdoulaye Wade pour l'interdire systématiquement sénégalais yi ñuy dem ville mm-hmm. et je suis sûr et certain que Aly Ngouille Ndiaye il rencontre à Macky quoi le Sénégal est dirigé par un seul et unique homme la preuve dafa dindi poste de premier ministre. mais loolu la Macky a pas euh, euh, a dit le mais il nous a prouvé que gouvernement bi jardin d'enfant la. mu ne du ma wax oui du wax non su ma waxee oui dañu liggéey su ma waxee mais la. il l'a dit c'est un aveu loolu li wax noonu dafa graw il a qualifié ses ministres d'irresponsables en réalité il faut que ñuy déglu le punchline bi nekk ci suuf. quand tu dis que man samay ministre su ma waxee waaw du ñu liggéey su ma waxee déet yéen a ngi marche ça veut dire léegi Thiat am naa beneen question mooy yéen ñi nga xamante ni depuis 2008 2009 2010 2011 ba 2012 ba depuis 2012 on a eu euh, contestation bi taxaw na indignation bi taxaw na alerte yi yëpp taxaw na mais nan ngay expliquer le fait que à chaque fois qu'il y a une consultation mais peuple boobu ngay wax ne moom ngay défendre donne une majorité au président de la république. non je ne suis pas certain que peuple boobu noonu ñuy waxal. Hmm. moom moo joxe une majorité xam nga les mécanismes. Hmm. pour les élections hmm. ñun maîtriser wuñ ko. quand tu maîtrises pas le fichier électoral. parti au pouvoir moo ko xam ak ministre de ah, mais loolu comité électoral ak ñun ñëpp xamuñ ci dara. la réalité ce fichier la ñun ñëpp xam nañ ne baaxul. lu tax baaxul parce que c' est un politiciens yi bi ñu koy jot boobu fekk na presque trop tard mais ci lañ nangoo dem élection parce que il faut que ñu dem élection mm. pourquoi duñu dem élection parce que mm. Macky ah. ko nangu. donc Wade a fait le jeu de. mais ça aussi xam nga il faut être logique xam nga en bi ñu génnee ci élection 2007. Mm. Macky était directeur de campagne bi opposition bi d'accordul ci méthode bi élection yi jàllee. dañu boycotté législative yi ci topp. Mm-hmm. yaa ngi fàttaliku l' opposition dite représentative avait boycotté. te xëy na boycott boobu moo tax ba ñu dellu si ci table ji le vingt vingt deux mars deux mille neuf ñu raflé. Mm-hmm. les grandes villes du Sénégal. est ce que tey jii aussi on n'a pas une opposition. qui n'est pas très conséquente. non man quand il s'agit de critiquer l'opposition je dinaa critiquer opposition bi aujourd'hui pour le mutisme de beaucoup mm-hmm. mais du ma ko critiquer pour avoir candidat ci élection yi passé parce que suñu defaloon candidat ay candidat naxa-naxa lañ doon am Sénégal Macky Sall ñëw la loolu c'est une humiliation c'est une régression démocratique pour l'histoire du Sénégal dans la mesure où amuñu sax ay alternatives suñu dem ci ay candidats maintenant ci ay local ci ay législatives lu boycott bi amoon en 2009. le le résultat moo lan <laughs> mais 2009 ba beneen assemblée nationale ba. Mm. tàccoog fecc fa amoon assemblée. il y aucune représentation ko fa c'était une erreur en en réalité c'était une erreur parfois dina am parfois parfois tu tu risques tu prends le risque de perdre benn cinq cinq ans pour parfaire quelque chose c'est le risque c'était le risque. mais est-ce que mën nañu wax erreur la parce que le juin aussi peuple bi ne woon demul assemblée nationale moo dem buntu assemblée nationale. est-ce que tamit gis nga moo tax nga ne peuple bi. mais moo tax nga ne peuple bi su fekkoon y' avait pas un dysfonctionnement à l' assemblée nationale. le peuple ne serait pas dans la. léegi comment bi ngay wax nii. mais il faut que ñu toog waxtaanee ko. les acteurs a ngi ci dialogue national. non yàlla tere ban dialogue national la moo fi am. mais est du foofu justement lañ ko waroon mën jéem a régler. dialogue amul xam nga balaa nga woote. dialogue dialogue politique am na dialogue national am na te politique qui se trame dans sur le dos. diggante kan ak kan diggante ñoom ñu fa bokk ñëpp. parce que mais yan yan élément ngeen am yéen. mais élément pousse ay local. est-ce que yow dañ ci nangu dañ la consulter. dañ la consulter. Hmm. dañ maa consulter te ñun lañ wax ne ñoom yi pour kan la c'est pas pour les politiques c'est pour le peuple. xam nga peut-être que yow am nga ay désir envie nekk ngaay candidat. xam nga sànq yaa ngi dellu si parce que yow parce que yaa ngi def ay mbir. non non yaa ngi dellu si ci li ma doon wax non non finalement tout le jeu là ça revient entre les mains des politiciens. non parce que loolu ñun ñoo ko accepté. sànq loolu laa doon wax nga kay bañ parce que non non parti bi ngay wax nii. Hmm. parti bi ngay wax nii mooy fi Pape Djibril di wax loolu ñun ñoo ko accepté. pourquoi ñun ñoo ko accepté parce que ne serait-ce que accepter qu'il y a dialogue rek. c'est parce que ñun ñu ngi cautionner ce qui se passe aujourd'hui c'est un deal c'est une magouille mais ñun on n'accepte pas xam nga mhm. kii nga xam dañ ko jël constitution mhm. jox ko yenn pouvoir yi. Mm. ci sunu système bi ñu am. kooku bu wootee yenn saa yi du ànd ak bañu ànd de. c'est-à-dire que il done il dicte la conduite non tey moom moo woote dialogue kan moo woote moom moo wootee mais kan le président de la république mais il faut qu'on arrête balaa ngay woote dialogue day fekk nga am de d'apaisement ci sa dëkk waaw yow yaa ngi jàpp Guy Marius Sagna yaa ngi jàpp mm-hmm. Leuze yaa ngi jàpp. mais loolu c'est le principe mais la réalité mooy woote na. on va euh, dinañ am prolongation bu ndaw juste juste après les informations mais effectivement Pape Djibril li ñu war a nangu mooy vraiment joxe flyers ci Sénégalu 2020 waruñu ci tey nit publicité et puis ñu dem ci information